jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa ne ñu ngi fii ci arène nationale eh, ci face to face boo xamante ni waa rek DKR production ñoo ko organisé bu ñu nee tey làmb wax crème de ñoom la waa DKR jël boole leen ci benn journée muy le 25 juillet fii ci arène nationale ñu leen ciy félicité ñoom ñëpp. ci njiital gi ba ci ki nga xamante ni moo ci gën a féete suuf di leen jëfal ci innovation bu rafet grand combat bi dox ci diggante xale bi nga xamante ni mooy Neko Réel la di doomu Langsar ak euh, Marley ñu jël yeneen combat yoo xamante ne toftal nañ ko ci ku mel ni Kool bu Zap boole koog Pape Thiam jël wuli wuliwaat boole koog Adama Diouf. jël Malick Ndiaye 37 fou boole ko Bou Siteu ak yeneen xale yoo xamante ni ku lim doo juum waaye da nga dul matal Pape Yékini ñu boole ko ëbbali yooyu yëpp nekk ci benn bis combat bu ci nekk mën naa nekk grand combat signature bee ngi nii ci ginnaaw dañuy xool mbër yi dugg laaj leen nan lañ koy gisee nu ñuy waajee après tabaski ñu tabaski def juróomi fan ñu war a laale lekk yàpp naan meew sangoo saabu toilette kaay Adama kaay. Kalmu Ndour le fou je suis là le foot de l'arène. boo heure bi ngay doog. non man dama nekkoon samay affaire rek dama demoon entraînement dama demoon entraînement waaw ñëw. parce que maa xëy suba si dem Maaro ñëw dem Sall peut être door a ñëwaat fii nii waaw. fonk na bis bi de. non garaaw loolu la si am. loolu la si am bu ñu sampee fii rek mu xam ne lépp dëgg la kii taxu maa jug fi ma teg sama bopp du si moom. barke Cheikh Sadou. nee na da nga koo du ragal te dina la teg lu métti. jàmbaar la jambaar la mais fi ma teg sama bët du si moom kii bu arbitre di siffle may dal ci ko man amul lu ma koy may amul lu ma koy may arbitre buy siffle may dal ci xale laa kon fi ma teg sama bët pour ma prouver rek foog ma woon ko ko humilier ko manqué ko respe amul lu ma koy jox cër si combat bi mosuma koo may cër dama koy manqué respect ay buy ma koy manqué respect soxla ma explication. ñu bari tabaski bi jub si ñu war a tabaski ba mu des juróomi fan nga war a bëre nan nga koy defee ak tabaski. man tàmm naa li man bëre naa bëre naa lendemain ñu tabaski bëre naa boor set ñu tabaski bëre naa boor set ñu woor lii tàmm naa ko. kii fi ma teg sama bët daal li ma la mën a wax yàlla na yàlla may gudd fan ak wér ba bés ba ma defaral ko affaire ci barke Seex na Seex Saad bu man fu ma woo ma wuyu ko fu ma woo ma wuy ko te combat bi fu muy fu ñu koy yaakaar sax moom du àgg foofu kii prip dip laa koy def libéré gars yi prip dip du coupe du def dara déggoo ma ne du teg loxo sax kii du teg loxo man sama waa dëkk fu ñu jógee dafa sori foog ma teel na a libéré ma teel na a dañuy bay si nawet lañ nekk. kon kii nag du ma taxaw fi di mu war a ñibbi géejawaay ñi war a ñibbi mar man teg di lewetoo jëmale suba du ma ko def du ma ko def a séeréer dañ may yónnee foogale séeréer na mais xooyaanuno fop mi grand mbañik mi grand mbañik mais xooyaanuno ko a fana mi fa omo seen junior Serigne Modou Ndiaye nun ndamtaane a paa nu ande o ɓiino séeréer o ɓii nun o ndeb nun ten du mais xooya séeréer fop andun fop ñoojoor bo fayaa ko a sinig fop me xoyanun nang combane bo Fatick a Njanjaay Jilor Jijak bo mar fafa ko mar looc mar sulu migrant mbañigo ɓiy nuun me xoyanun no combane nun ndamtam bo ndangan sambu fop Samba Dia bo Ndios Moon me xoya fop waaw ama nuyu nañ la waaw delloo siyaar di leen jox seen wàccu waaye di sant yàlla ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fi lool ñaan yàlla événement bi ñu jub mu ñëw ak jàmm dem te benn borom kër bañ cee loolu ci barki maam Cheikh Fall ñaan yàlla suñu bés bi ñu jëm muy le 25 mu taw feexe te tay siire yàlla suñu borom defal ñu ndam lu seddu guy ci barki Cheikh Ibra barki Baye Modou Djili Fall mm. lañu xale bi nga xamante ne mooy Grand mu nekk ndaanaan ci ci làmb kenn du ko présenté tey nga nga jël ko préparation bi naam yàggoon na mais yéen a ngi toll ci càppaandaw actuellement lan nga yëg waaw sant yàlla rek comme ni nga ko doon defee ñu xam nga ñëw sababu ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam ci barke Serigne Fall amul lu ñu lu ñuy wa yànq yokk wala lu ñuy lu ñuy wàññi ni ñu doon waajee la ñuy waajee dañuy ñaan yàlla yàlla may ñun ndam rek la jour ji incha dama dem léegi jëli ko mun na du la jox benn respect ci digg géew. non amul dina la humilier dina la agresser dina jaar sa kaw. waaw loolu xam la loolu waxam la depuis loolu maa ngi koy dégg si moom loolu xam la mais xam nga wax ak jëf du benn dañu koy bàyyi wax ji rek ba le jour ji incha allah yàlla noppi na bu yàgg ndam nag yàlla moo ko yor mais dañuy ñaan yàlla may ñu ndam mais le jour bi incha allah kenn du ñu jëppi bu soobee yàlla. xeex wala taxawee xeex. tout bu taxawee bëre. tout lépp ñëw pour def xeex bëre. bu tawee ñëw song. lépp la ñuy ñëw pour def xeex bëre. bis bi dafa mel ni am na fu mu la ndax gis naa mystique bi bëri na trop ci yow ak ci moom. non si comme tout le temps ñi laay def ñi ma ànd lu ñu ma jox dama koy indi leen jox seen cër ba mu mat waaw ma waree entraîné damay entraîné ba mu mat sëkk si comme ban important la am ci laaw. mystique ah may laaj xanaa man dañ may jox rek may indi ah. xam nga importance bi ak am fit ci géew ar bi ne prime nga jox sa bopp reyante mais ñi nga xamante ñoom ma yàlla suñu borom dogal ñu mën a ñaan di ñaan ñooñu dox leen micro ñu laaj leen ñu wax la fan la musique toll ci man dañ may def loolu rek may def. ñaata nga ci def ci xaalis. man ñaan lañ te yàlla rek taxaa ah. ay Baye Fall laa yor ñoo xamante xam nga di nuyu waa Jiraas waa Ñaaxar ak waa Jurbel bi ma dëkk hmm. ma di siyaar suma waa kër sëriñ yëpp waa Antar Fall yëpp di nuyu sama sëriñ suñu Cheikh Bintou Fall ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool sama sang wa Cheikh Mour Ba Jili Fall si barkeem. nuyu sama xarit soxna May Fall ak borom këram Sidi Diop maa leen di siyaar bu baax di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi di ñaanal suma rakk yi ma àndal bu sita bébé guy gi yàlla may leen ndam ak mburu géej waay yi ciy bëri yëpp ni ni Pape xam nga gaay am ndam incha allah. bu soobee yàlla loolu jour yi incha allah waa Diourbel waa Guédiawaye ñëw. allah ñu bëre yàlla suñu borom ma ñu ndam bu soobee yàlla. xam naa ni daal Guédiawaye dinañ sax sàpp ci làmb. waaw mais mooy yoon mooy yoon mooy yoon Guédiawaye boolo la booloo xam nga c'est la booloo c'est la bokk benn c'est la bëggante eh, incha allah mais di leen ñaanal aussi waa wasaare suñu borom defal leen jàmm parce man xam nga damaa xaw a kii ci yéen noonu la fa demee waaw du yéen am leen jàmm bu baax incha allah kii kan la naka mu. onkal gij naa la woo di waa wasaare ñoom de buñ wasaare ñoom de buñ wasaare rek rek ñëpp doyal xanaa di no bàyyi ma la yee xat rek hmm. waaw est-ce ko yaa ma bàyyi gisatuma la benn dégat mooy te xam nga ne yow boo wasaare rek lépp sotti mais kontaan yow nag di nuyu nag di nuyu askan bi yëpp di nuyu waa dek dëkk di nuyu gannaaw ma sant yàlla judi si bi gërëm sama ànday gërëm sama baay di nuyu suñu waa dëkk yëpp bàyyi ma kenn di nuyu sama papa di nuyu sama yaay nuyu sama mag yi di nuyu suñ demba bàyyi ma kenn daal boo limee da ngay juum di nuyu tund yu ñu war yëpp ñu mel ni Taabe ñow dan Nguulul Tournal Fuyal Sande Mbirig fàttewu ma kenn daal commune bi yëpp ma nuyu bu ma waxee commune bu Mbeelaka Jaw rek di di di di jaale géej ne ko yàlla na ko yàlla xaree arjana di nuyu nag benn jeune boo xam ne vraiment gis naa muy liggéey liggéey bu am solo muy Demba Demba Gueye vraiment. mais da daj na sax ay ay supporters yi. ñu bi. wulli wulli wulli gis naa ko mu ñëw léegi mais Adama wulli café wul combat bi de. waaw non wulli combat bi ku ko café sax waarante kay rek ñooñu di ñàkk la yu am jom gars yi war a jàppale di leen jox suur lay porté ñu teg lambu gis nga leen ñoom utuñ sax gis nga tabaski kas suur rek ñoom nanguñ cee sax arrière benn promoteur nangu koo jël ma ñu kaka jël ko te boo xoolee mbër yi ñu génne war a xam ne ñii nii xaaruñ ba si ñu la joog a jël dañ mbalu séeréer yi ak mbaru olof yi jaxase ñu mën a ndewenaan bi ku ko fàtte jartul ngay seetaan lamb de. wële loo koy def. wële wële rek ma def ko ko. non nee na moom mënoo koo dóor moom da lay dóor nga daal. wax lu ko neex rek. nee <laughs> na moo bu lekkee kaane day wax. daa lekk kaan sekk bu lekkee ah, wax nga. wële daa ne day tewari tewari dañ toll. mais ba bi wàccee loxoom tewari dootul am. wële bu waxul lu muy def mu nekk nii. Adama Diouf ñëpp nee nañ tànk wulli nga jëm te wulli xam nañ loolu maa ah, koy duma ah, contrel maa koy duma ma ne ñëpp nee nañ bu arbitre bi sifflé yow ci tànk wulli nga jëm daa ko duma nag au contraire laa wax bindal nga te waaw au contraire maa koy duma mor askan mooy duma man maa la wax lii ji li <laughs> combat maa ngi ci woo ñëpp nag fàttewuma kenn lu mel ni président économique Adama Ndour Ablaye Ndour daal sama papa di nuyu Matar Diop au conseil Tamsir Faye mooy Sarr Souleymane Dioral di woo ture euh, Touré monsieur Touré Mamadou Touré suma patanu directeur numérique di nuyu Matar Diop au conseil di nuyu docteur Makouma Diouf spécial di nuyu maire commune Grand Yoff ma Diop Diop fàttewuma kenn ma limee di nuyu jàmbaar mi nga xam ne caare maa bu la de nga wàcc ci suuf yeggali ñëpp. kontaan na kontaan na merci. ay nuyu naa la. fay naa waaw. li ah. ndeke nii nga fonkee bis nii nga mënee bis. man may may ndeke wuli boo waxee gars yi kontaan ndeke bis da nga koo jox cër. bu ma ko caaxaane. Lamine lépp lu ma am euh, jiili lépp lu ma am la ma tax ma am ko képp ku ma xam la ma tax mu xam ma. kon lam duma duma ko caaxaane bak sëñ Adama Diouf gis naa nga ñëw yor torse rango euh, sëru euh, xaw ma malikaan la def percal sa bopp bi lan la Adama Diouf mystique da nga jàpp ne moom lay euh, defe percal ku fay lu lay taale torse xale bu juddu lu lay laxase. foofu laa yem. kon maanaam Adama Diouf ko taal. non da koy fay <laughs> di ko ah sa bopp. boot ko ci ci ci kii bi. xam naa boobu doo rey da ngay bàyyi ba yàlla def lu gën. non du ma ko rey yàlla bu ma rey nit. waaw <laughs> di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. Euh, di leen gërëm Adama Diouf sama waay la ku baax la. mais combat bi moo ko laaj. man lamb amu ci xarit. aw ma ci mbokk barke sëñ Bamba di li tax may bëre chaque jour damay wane jom ak fit ba daanu bañ ma daanu de xam na la nga bañ bu ragal ba daanu wala daw bu daanu bëgguma sax daw bu daanu bëgguma ko victoire sax su ma koy am naa ko ab ci jom barke sëñ Bamba billaay tudd ne maa ngi koy gërëm Calme parce que ñooñu ñoo bokk saal ay ay lu mu tudd di Serigne Ndiaye di ñu mel noonu nga xam ne ñoo bokk saal nga dañ ko dee. Forza ñoom Forza samay mu nga jàpp na ma ci ko bi lu bëree bëri dem nañu dëkk ba dem man ab problème Calme Ndour bët la ñu bëgg dégg bàyyi yàlla baax na Serigne Ndiaye sama xarit. Forza patron bi dama bëgg trop muy Pape Mayer Diop waaw mais maa ngi gërëm Laat moo mën ñëpp. Laat Diop barke la may. moo baax moo góor un la may. moo tax léegi bi may mi fa may dix mille ma maa ko moo. ñi ko dama koy won ne ñi may mille francs man dix mille lañ may may. ci jabaru Kara Fatou Mbaye maa koy gërëm di ko sant ku baax chaque jour mu woo ma di ma ñaanal. sama nit sant borom tëb ay kat. plateau. plateau koo war a laal. njaago borom njaago bu tapet bi. tapet du simb gaynde. njaago nee du jeex de. xare Badar ba ne woon démb laay delloo ci tey raag ba romb Palestine bàyyi sëñ Bamba. Malaw lii no perdono il liego no espero. loolu mooy la. loolu la bambara bi naan mbé foo la mbal moo ko nunu foo la ay kee du baabu keñee. bi du yomb. non day yéen lu ne. man ak jàmbaar njaago bi ci bi fii. yàlla ñu yàlla kattanal yàlla boo xam ne moom moo am moom moo mën yàlla ñu yàlla may waaw di xam ne na ci fair play parce que làmb rek quoi. waaw xam di ak gërëm ñu ma àndal ñoom sukki prophète Madia sama booy ma àndal waaw di leen di wax waaw di woo waa Fass lamba ji seen lamba la tay sama booy di dama leen yërëm dañuy veillé sama gaale saa su ne. sax mais lamba jee ko laaj rek. mbër mu ndaw. waaw mais mbër mu nag mbër mu ndaw mooy doon ëllëg mbër mu mag waaw xam nga di woo sama monsieur le maire di ko sant di ko gërëm moom jàppale na bu baax a baax a baax Ousmane Ndoye maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm ñoom am Kër Massar maa ngi leen di gërëm ñoom Souleymane Kinif waa Kinif ma ngi leen di siyaare waa Kacalik waa Mali sama mbokk yaay jàpp nañ bu baax maa leen di. nga njaago bi rek nga naan Mali kilif di tudd ay xam ne kenn xamu leen booy. lu dul njaago bi sax damay sant waa Mali waa Géréw Jifir mbëru dëgg laa man du ma mbëru koñ barki Serigne Bamba te maam góor gi dafa ma jox kan ne ma demal daan sa maam góor gi Ndiaye dañu am lu ñu dénk ñëwaat waaw te xama rek yàlla si yàlla yóbbu si jàmm rek non kan bi suul bukki suulul bukki la amal ba non li dina dara ñun rek ñun nitu jàmm lañ ay jawaal yi di mbokk waaw di sama mbokk jawaal yi maa leen di siyaare waaw. <laughs> mbër siyaar. bëgg naa la. kay. waaye sant rek tey. yee di ñaan yàlla ndam kese. bilaay walaay taalaay yàlla dolli ñu sutura may ndam. yee ndam kese lay laaj. laajul leneen. su ma ñëwoon buuxa mu daanu sax neex na. mais man bàyyi ma lépp maa ngi def lépp su laajee bakkan bu fi desa dina fi des. wax rek bëgg a teg lu méttee métti. Ah, yàlla bëri na sutura. ndax làmb daa am lu mu baaxoo. làmb man amul nit boo xamante ne dina ne Laurent man maa ka jaay wala maa ko ta man maa taal sama bopp man maa jaay sama bopp si làmb. ko xeexu njaago du jeex mu ne ma loolu ay sóob la rek. dina la dóor ba nga jeexal xeex bi far fos. waaw ba man moom su su ma mënee rey rek na ma rey su ma ko jeekoo yàlla nañ yàlla suturaal rek yàlla baax na. Pape nuyu naa la. Jili maa lay fay. waaw sant Serigne Touba bu wër a wër. alhamdulilah. nga ñëw pour remplir sa contrat ak Paul bu Zap. seen moroomu naataangoo yëpp daje ci làmb. bis bi lan la laaj ak préparation bi nu mu demee woon. waa sant Serigne Fallou Mbacke mu sëñ atee sama wasila mu yàgg fi lool te wér ak doomu Géejawaay yëpp ak képp kuy bëggee Pape ndax combat bi bu dul man sax samay nit ñoo ma ko gën a bëgg quoi jàppal ni li ma doon waaj combat lu ko raw laa waajee combat bi lu ko raw laa ko waajee si plan yëpp. ndax adversaire bee toll noonu wala bis. wax ji moo bëri quoi. kan si adversaire bi dana ma koy dana xam ni li mu yaakaar amul. est-ce bu ma xeebee xeeb musuba am ndax am na ay moromam lu fi jaaroo li ko doloon li leen doloon moom laa gis si moom te incha allahu rabi bu neexee yàlla la 25 nañ gis lu bees tàkk. tabaski teg ci juróomi fan ngeen war a laale préparation tabaski kuy préparer combat daa mel ni c'était la première fois tabaski jot ñu war a tabaski ba mu def juróomi fan ngay préparer komba loolu loolu ban taxawaay nga ci am. non métti na heure bi doon fekk may def opération xar di jaay xar mais lamb ji moo tax sax li ma waroon defe apparation opération xar xaalis bi yëpp dama ko jël dugal ko si lamb ji parce que xaalisu jàmbur kon nga xam ne métti na mais lépp rek bëgg moo ko waral ak gëm suñu bopp ak xam lamb fu mu ñu war a yóbbu quoi mais wax ji daal lu ko mun a gàttal le 25 incha allahu rabi yàggatul yal nañu yàlla mooy fekk ak tal ba le jour ko def lu ko góor mu def si géew bi incha allah bu yàlla. Kool nuyu naa la. maa lay ziar. waaw yaa ngi am tranquille ñu sant yàlla bu wér. yaa am taw. waaw sant yàlla bu baax a. war a laal ak Pape Thiam. waaw dafa leer le 25 incha allah. Pape Thiam nee na am na lu ko métti parce que da ngay wër ci dëkk bi di wax rek dina la teg lu méttee méttee. Pape Sa Pape ko mu féetewoo wax ji le 25 bu soobee yàlla lépp dina leer yàggatul sorewul léegi rek laa koy léegi rek bu la le 25 la taxaw dëggal boppam rek buñ nekk la taxaw rek dëggal boppam buñ nekk fii di wër-wërloo di bëre bëre ragal. na taxaw rek ñu jëflante def ko yëfu xale loolu rek laa bëgg. bu taxawee loo ko yéene. Ah? ko yéene. non ba rek na taxaw rek dama bëgg mu na taxaw rek wax ji bëri na jour làmb jaar na taxaw rek dëggal boppam waaw. ñu def ay njaari leer moo tax moo tax mu war a neex day neex na dëggal boppam na taxaw dëggal boppam rek loolu rek laa koy ñaan amul leneen kese. dëggalee boppam bu dëggalee boppam def ko li ma koy def def sama yoon. dóor mu daanu mën na am ci combat. loolu noonu lay demee Pape Thiam bëriwuma ak moom de. damay xeex mu dama koy duma dama koy yóbbu. moom. loolu laa moom sax yow ma sa buut bëri moom man ne ma fi di di nëbu stratégie loolu lay loolu lay andi làmb ja te bu suuru làmb ja di nga gis loolu wala sëñ bi jaaraama. moom moo war a laaleeg Malick Ndiaye 37 fu te la dina la gaañ de li bébét bi bu am ci yow du jàmm sax loolu dóor dóor ci digg géew loolu du jàmm. barke Serigne Touba kooku dama koy teg lu mel kii mag la comme lu ma ko wax sànq rek ja kii jamonoy la kii jamonoy màng ba léegi munul bàyyi bëre ci koo xamante ne nii waga la te bu ma ko jàppee lu métti barke Serigne Touba Mbacke. billaay wala kii maa koy génnee làmb ji. le 25 juillet bu arbitre bi ne pire naa ko dóor dóor yu métti bu arbitre bi ne pire damay maamu si kaw lu métti kii du ma téye kii mag la barke alxuraanu karim naa ko teg lu métti waaw ah, xam nga laa koy wax maanaam na waaj te mu bàyyi wax ji di tudd ay waa géejawaay man ñëpp ma bëgg barke alxuraanu karim man ñëpp ma bëgg te parce que may xeebee. di ma wax ku bu at bi ne pire damay dem fekk ko fu mu nekk teg ko lu métti yow gis nga Malick Ndiaye léegi mu ki doon gis nga ko. kooku man dina dina arbitre dina pim may nekk fii di di waa Géejawaay kii arbitre bu ne pim naa ko teg lu barki Serigne Touba Mbacke. loolu temps la. yàlla ñu egg si. Bour yàlla julli si yonent bi sant Serigne Touba waa këram ñu ngi lay fay. maa am jàmm bu baax. comme li yeneen bés yi doon laaj rek lam xam nga duñu si gan ku bëre ay 14 combats. lam mënu laa fii mu ne nii li ñu war mooy entraînement presque pare nañu li ñu war mooy fii mu ne nii arbitre suuf la ñu bëree jàpp daan ñibbi loolu rek. dafa am erreur boo defoon arène nationale fii nga war a rectifier erreur boobu sa diggante ak mobile est-ce que dina yomb ndax mobile mbër mu mag la de. mobile lu mu doon mbër mu mag gënut maa doon mbër mu mag li mu maa ko ëppi combat may defet maa ko ëppi kon mënu maa gën a doon mbër mu mag fu muy jaar gën mu maa ko ëpp victoire fuuf mu ëpp may défaite kon xam nga mënu maa gën a doon mbër mu mag. combat bi lu mu ko jaral benn jaral na ma ko 2 millions. su waaw barke yonent bi bu ko jaralee benn jaral na ma ko milliard barke alxuraan sama combat la dama ko bëgg. ndaanaan nga ci wàllub xeex mais mobile nee na du la teg teggil tànk benn yoon seen diggante yee ñaar est xeex dina am ci combat bu ko neexee bu arbitre soufflé ñu teg loxo yi fee jàpp mbapat waaw. pare naa bu doon tey tey arbitre soufflé barke alxuraan ma bëreeg moom. pare naa lépp lépp lépp pare naa fii mu. indi ci bis bi. anam moom moom ñëwagul ba léegi gisuñu ko de. ah xëj na moom loolu la concerné mais nit da nga war a respecter bi ak waxtu wi ak li nga xamante ni moom nga sax ak sa. sa ni nga contrat bi dañ ko war a rempli quoi ñun looloo ñu fi indi mais du question ni ay lii wala lii ñun contrat bi moo ñu fi indi li ñu sax ak sunu euh, promoteur bi moo ñu fi indi dañuy rempli sunu contrat dem nekkaat sunu yitte nekk su sunu entraînement bu bés baa ñu ñëw bëre si lu xew dinañu teew ñun dëggal nañ sunu bopp pare nañu pour lépp waaw. ah. Bawol gépp a ngi sama ginnaaw parce que Bawol amuñu lu dul ñun ñun ñoo fa nekk. Tafatine mooy sunu grand ñu ngi fa ñoom mbay guy gi kewel gars ñu ngi ñun jàppale ñu quoi parce que ñun amuñu lu dul bawol bawol dañ ñoo war a ñëw jàppale ñu xëccoo ji roi bi ñun roi bi lañ soxla mais pas ay mobile mobile taxu ñoo jóg. wala bawol ngay def. man sant euh, pas si climat bi waaw. sant pas si climat bi lu am ji laaj rek loolu laay def waaw jaajëf doomu Joof bi siyaar naa la. siyaar naa la bu baax doomu day maa yaa ngi am sant bu baax kay alhamdulilah. nga ngir remplir li nga xamante ne mooy sa contrat. dox sa diggante ak Pape Yékini. préparation bi nan la demee ak combat bi ci ñaata temps ko jël. waaw combat bi jël naa ko si deux semaines. waaw ñu ngi si préparation yi boo bëggee gi quoi waaw di waajal combat bi ak samay mbokk di woo suma mbokk séeréer yi di woo waa parcelle 1 ba 26 waaw ñun ay doomu parcelle lañ nekk ay doomu Diofior nekk doomu séeréer di woo suma mbokk séeréer yëpp ñu jàppale ma si combat bii nii xam nga ñaanal ma yàgg may ma sutura suturaal ma waaw. ñu bari dañoo umpale Pape Yékini waaye xam naa ne yow ko jël xam nga ko ndaanaan la ci làmb champion. ndaanaan bu mag champion bu mag ñu koy jox cër ak respect di ñaan suñu borom kàttanoo ñu si rek a ah, di woo waa parcelle 1 ba 26 man doomu parcelle la waaw ah, di woo monsieur le maire Go fay xam nga ak magam euh, ak rakam euh, mef waaw di leen woo ñoom ñëpp ñu jàpp si DG xam nga di woo waa mouvement réaction bi yëpp di nga ñaan ñu ñaanal ma si combat bi suñu borom may ma si yaa ko laaj wala moo laaj. non moom moo ma moo waaw moom nag tax mu gaaj ma nag bu jour ba dina gër. fan ngeen daan gisante lu bare bare waaw moom kat moom dafa am moom dafa am sax fit non mosuñu daje fenn. waaw moom dafa am sax fit moom ki fi ñëpp bàyyi moom mu ne moom moo koy jëg dafa dëgër fit de yow gisoo googu. mu dëgër fit loolu nga gis. yow ba nga 25 incha yow nooy neex nga ci nooy neex. yow si réew mi nga dëkk yow xam nga ndax man gu nooy neex gu moom mi jàngoro yëpp dajaloo mu ne Siteu la bëgg. jël la ah, ah, ah, am na lu mu bëgg de. ah xam naa daam am fu mu ko teg rek no sa waay xam nga rek bi muy jël combat bi tabaski bi mu ngi ñëw comprendre nga te moom xam nga borom soxna nga yor njaboot xam naa moo jël moo tax mu jël avance bi rek pour mun si jënd xar. daal problème mu xar a mu jël. tax mu jël combat bi de waaye du bëgg moom parce que xalaatu tëdd di nagaw di xalaat daan ma. xam naa ne tabaski bi di waaj a ñëw rek xam naa ne dëkk bee dëgër mu jël combat bi mais bu gàcce woon ay mboqam du ma jël. ñëpp xam nañ ne ndaanaan nga ci wàllu bëre xeex bi seen diggante yéen ñaar dina am xeex samp jaar. waaw ba jour ba rek ba jour ba rek. dina no ba jour ba rek ñun lu ñuy def bu jour ba ñëpp dinañ dër seen gémmiñ lay doomu parce que mënuñu doon ay ragal te sangoo bu googu weesoo sax ñun dañoo nekk si ay loxo ay mag waaw man jamono ji fu wóor laa nekk. waaw li ñu war a def si man ñu ngi koy def si man si waagu liggéey bi yëpp waaw bu jour ba dinañ xam moom xam naa ne combat say xeex nga ko teg mais bu jour ba na ñaan yàgg sa ñëw si làmb ji hmm. waaw loo koy wax ji moo yow ba ba rek incha allah rabbi daf maa bàyyi Pape Yiki waaw jili ñu lay fay baa yaa may yàlla bu baax a baax sa diggante ak parce que nee na li nga koy yabee ba jël ko la xamul dañ laa laaj nga ni Obali laa bëgg nga jël waayeetuñ dañoo pare waayeetuñ dañoo pare bu nekkoon tey sax day neex dañoo pare instant yii nii mbër la comme yeneen mbër yi mbër la au man maa ko war jël war moom bëreeg moom heure bii. dañuy mel ni dañ laa réeré bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama dixième combat. ñaata am naa sept victoire. ñaata défaite. Euh, deux défaites. gën a kan la daan. rek moom daan ak Ablaye Ndiaye. xoolal loolu. Pape Yékini nga tourné. dem jël ëpp. waaw noon noonu la. noonu la làmb demee noonu làmb lépp risque la. làmb lépp risque la. nee na na da ngaa am tabaski bi daa jub si amoo loo jëndee xar ndax da ngaa yor soxna. bu bëggee moo tax nga jël avance bu bëggee sama may ko xar. nee na moo tax nga jël avance. wax ji bu bëggee sama may ko xar laa la wax ah déggoo li ma la wax. dina la agressé ci digg bi. wax ji baat bi ne prime ñoo xam ne lépp dëgg la ku koy jéem ak ku ko moom day jéem. déggoo wax ji ku koy jéem ak ku koy mën bokkul laa la wax. day jéem ba jour ba ak jàmm le 25 moom jaaga taxaw moom kurbañ. billaay bu la bu arbitre nii prix ko ci. bu moom bu dee moom mooy mag gën ma koo bëgg man mi xale xaw a def. moom kan moo dàq bëre. déggoo wax ji loolu yëpp bu le 25 le 25 lay leer. kan moo dàq xeex. déggoo wax yàlla ba ba le jour J ak jàmm rek a pare ci combat non damay ñaan yàlla bu ma ñaanal ko wér ñaanal sama bopp wér ñaanal amateur yi wér journaliste yi ñëpp ma ñaanal leen wér ba le jour si incha allah kenn bañ ko wute bu soobee yàlla incha allah gën a bëgg euh, bis bi. moom bu ma ko bëggee moom du ndànk sax dama ko bëgg bëgg bëgg fu mu toll nii pour man sànq ma ñëw fi sax pour man tey bis la. Hmm. billaay walaay. kon bu leen waa CNG woon léegi ne kaa leen laa leen. léegi léegi léegi sama ko neexee léegi léegi ma déggoo ay yow. xanaa kon di ngeen koy maye ñaar yoon maye ko léegi maye waat ko. bu ko neexee bu ko neexee ñu wàcc ko léegi maye ko fii léegi gratuit ñu xaar le 25 ñu xoolaat. ah loolu de buujaa la moom loolu de neex la moom. waaw yow mooy loolu doom day. jaajëf ok. Pokola nuyu naa la. fay naa la. maa am jàmm. bu baax. laa leen. bébé guy gi. xam nga ko menn. bébé guy gi xam naa ko kay. a mën a xeex wala bëre micro bi lii micro. day xeex day bëre ah. mais bu ñëwee fekk noo ko fas yéenee teg. ko fas yéenee teg. waaw nit nag moom kenn du ko yéene lu métti mais bu ñëwee dama koy daan moom du fa am li mbër ba doon wax loolu du jàmm ku la nar a du jàmm ah man de yàlla dimbali na ma bandi géew laa mu ne ma wax ju bari nag mais ba arbitre soufflé moom waaw damay def li ma war a def waaw ah, di ko nuyu nag di ko gërëm ndax damaa jafe woon am adversaire ndax man ak Papa Kane numéro 2 ñoo waroon bëre. moom mu dem ba si biir nangootul bëreeg man waaw di ko nuyu nag di ko ñaanal ba suur ba cinq mu am wér yaram ñi mu àndal am wér yaram ñëpp di ko nuyu daal ba suur ba ma ñëw jàpp ko daan ko jël bu set wicc dal bu set wicc loolu daal laay am su lu may wax si làmb ji li mooy yéen mbëri léegi signature contrat da ngeen mel ni ku nekk ci làmb ji gis naa li nga yor say naataangoo mbëri yor ko lii ci signature ban njariñ la am lii si signature làmb du foo làmb du lu foo te làmb du lu ñu caaxaanee waaw mais lan moo yor làmb baasu baasu làmb mooy lan entraînement lépp entraînement la lii si des nii yëpp pour lay aar rek yaa ma gën a xam waaw ndax làmb dafa garaaw bu dul day dalal xel yow mii sax da war a aar sa bopp yow mii ñëw si fa yow képp kuy fréquenté milieu làmb danga war a aar sa bopp ndax làmb dafa garaaw làmb moo nekk loo xam ne dafa garaaw quoi waaw di leen nuyu nag di leen ñaanal seen ra seen kii bi yàlla jëmale ko si kanam da ngeen dem ba mu doon télé waa li ngeen yéen ñëpp bi juboo seen biir ngeen déggoo loolu laa leen ñaanal waaw sa kaw sa kanam waaw. siyaar naa. delloo siyaar rek. maa am jàmm. man la bébé guy gi soo ma xamul jarul nga may laaj. guy kan. guy gi dafa rek koo war a laal ndànk rek di nga ñëw de. waaw man moom soppe ma maa mare laa lépp luñ may jàngal moom ànd ak teel rek. alléluia alléluia alléluia maa ngi bëggee sama mbokk chrétien yëpp bàyyiwuma kenn muy njaaw muy séeréer muy tukulóor muy bambara ak lu mu munti doon di nuyu waa Guédiawaye fi ma jugee maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax. waaw ki ma war laaleel mooy doomu mbër mooy jarbaatu mbër mooy lépp mbër jar samay tudd turam muy Pokola waaw Pokola. xam naa ko nii rek di seetaan combat am ah. xeexu njaago du jeex mu ne loolu wax bu yàqula boo ñëwee fii dina jeex ci yow dëgg la dafa fekk nag dumaguñu njaago bi mais buñ ko dumee xeex bi day jeex te Pokola du ku may téye waaw. li ñaan yàlla leen la yàlla mi maye yàlla ma may may ndam le cinq ci lëpp lu Pokola woote bu jour ba li làmb ji laaj ma def ko. man du ma mbër buy dellu ginnaaw ku seetaan sama combat ki ma mujjee daan xoolul booy bii ku ma mujjee daan du moromam musuma bëre combat bi yomb saa may jël ko war a met tey ngay dee man du ma doomu mbër te duñ ma choisiral adversaire man damay taxaw ne leen jox leen ma ku gën a diis te mbër yi fu ñu toog grand combat fa laa bëgg a toog couronne bi laa soxla booy tax ñu maa jóg te dina dina am bu neexee yaa te dinaa ko jëli ci di bëgg waa Guédiawaye bu baax di ñaanal Eumeu seen waa Guédiawaye yal na leen yàlla may ndam di bëgg ñëpp bàyyiwuma kenn Philippe sama coach maa ngi koy bëggee bu baax di delloo bëgg waa Guédiawaye bu baax a baax a baax a baax amuñu seen fay. mbër baa jili tur bi maa lay jaar bu dóor dóoraat bu rab ëllëg maa lay jaar ñu sant baax maa ngi sant baax boo war a bëre Boston laay bëreel Boston numéro 2 ñëw na Baston mii ne toog ñëw na. gis nga gis naa ko waaw. noo ko nar a noo nar a jëflante ak moom. non ñu fas yéene waaj ñu ne suñu mbokk rek waaj ak waa parcelle yëpp ñëw jour ba yàlla may ñu ndam ci kawam. lépp lay am dana am xeex dana am bëre. yàpp am doole naan meew ñëw war a bëre. war a bëre si nag daan ko jël bu rëy ku xaf rek doo gis jël bi nag. billaay ku xaf du gis jël bi. jaajëf ba jaajëf ba